yaa président Serigne Mboup di maire bu Kaolack di candidat ci élection législative yu 2022 yi nga xam ne moom lañ dënmal fii ci Sénégal fas yéene ko ànd ak coalition ànd nawle organisé woon na ndogu lu mag fii ci Touba ci ñaar fukki fani koor gi ci teewaayu kilifa yu takku ci njabootu Serigne Touba gi ay sëriñu daara ay commerçant ay opérateur économique ak yeneeni kuréel yu bëri Serigne Mboup laale woon gone yi nga xam ne dañoo am ndam ci jongante alxuraanul karim bi ñu doon amal ci biir réew mi ak ci àddina bi yëpp jébbal ay koppar ngir neexale ko mu nekkaat beneen mbégte mu ci dolli ko muy xale yi ñëw mu may fàttali man 78 laa tari alxuraan ba ma koy tari boobu xëy na tari xewul lu bari waaye sama waajur daf ko jaraloon mu jël ay naaru égyptien yoo xam ne ni ci école sëñ Murtada lañ ñëwoon doon fa jàngale mu ñëw ñu teel ma alxuraan fële ca Touba mu nekkoon fête bu rëy rëy rëy ci jamono jooju ah mu rëyoon ci man lool wax dëgg yàlla. ndax gisoon naa ne jamono boobu sama mbokk yi nga xam ne ñoom laa jàngaloon kenn amu ko ci te boobu defal na ma ko bu baax a baax a baax kon nag yéen ñii tey ñu leen koy defal di leen yóbbu ngeen nekk ay euh, ay ay ay ñu xam ne ne dañ leen leen roy tubaab yi di ko wax star mooy ku ñuy roy ku ñuy roy nag moom dafa war a nekk koo xam ne dafa war a tegu ci yoon euh, ngeen moytu rek ñu def leen ay star ngeen nekk staru àdduna star bi ngeen war a doon mooy da nekk ci star yoo xam ne da ngeen roy ci Cheikhul Khadim roy ci ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne nii ñoo fi taxawal lislaam ginnaaw bi ñu ko tabbee maire bu kaw Kaolack Serigne Mboup am yéene dem ci élection législative yi ngir gën a mën a àggale liggéey bi mu sóobu. mu tax nag li ci des ci kanam moom mooy beneen sag bi mooy mën a liggéey bi ndax nit kat looy wuti ba jot ko te defoo ko lañ la ci lañ la ci yaakaar ëllëg mën nga ci am gàcce am ca gàcce ak say say mbokk looloo tax. ma ci sàkk ñëpp ñaanal ma ci jàppale ma ci ma jëmaat ci loo xam ne nii ah yaakaaruma ko woon yaakaaruma woon ne wallaahi yaakaaruma woon ne danaa ci dugg waaye damaa dem ba ci biir gis ne war naa ci mën a dugg porte loo xam ne nii mi ngi ci baat yëpp ñëpp xam nañ ne muy intellectuel yi muy sëriñ si muy ñëpp muy politiciens yi ñoom ñëpp da leen dégg ci ay débat ñu ne a ah, waa daara ji di wax ne ah jox leen daara mu essayé wax nañ ko waxaat ko waaye daara du essayé ndax daara dafa def ba noppi daara du essayé xëy na ñi bëgg manque tuuti ambition ñoo naan daara mu essayé nañ jox daara mu def li mu def ci daara <laughs> waaw li def ci daara nañ ñu ko jox man nag moo tax ma ne su ma ko waxee Kaolack ba noppi nit ñett rek la am ay toolam fi muy liggéeyee fa nga xam ne ni ëllëg bu ko yàlla moomee fa lay mujje mooy kër gu mujj gi ak fa mu juddoo ak fa mu jànge ñett yi rek ñeent yooyu la benn bi mooy dakaar samay tool la fa laay liggéey fa ma juddoo mooy Kaolack bien que maa ngi fay liggéey waaye Dakar laa ëpp lu may liggéey fii moom xam nga ne li may ñaan yàlla mooy fu ma fu ma euh, bakkan bi fekk ñu indi ma fii ak kook ga ma jànge kon bi ma jógee ci Kaolack fii laa ko mën a waxe wax gi tamit lii du man loo xam ne nii bu doon député rek laa bëgg député rek laa bëgg amul benn coalition tey boo xam ne nii xëccoo ma ne ma jël sunu bos Kaolack ba ci yëpp. élection législative yi tuuba war nañ ci am taxawaay bu am solo amit ndaw yu leen teewal ci assemblée nationale ngir di jàppale sëriñ bi ci li mu bëgg ci dëkk bi. fii ñu jëm surtout dëkk bu sell bii war na am ay taxaw taxaw taxaw taxaw nag mooy. moom yàllaa koy taxawul boppam sax waaw yàllaa koy taxawul boppam waaye daf koy jaarale ci nit ñëpp xam nañ ne sëñ Mountakha Bachir ni mu taxawee ci dëkk bi ci lépp loo xam ne nii xew na ci Sénégal moom mu dugal ci alalam taxaw ci dox ci ba nga xam ne nii spécialiste yëpp nee nañ tey bu dul woon sëriñ a Bachir Sénégal euh, am na leneen lu ñuy waxati. instance de décision yi di bërëb yi nga xam ne ci la ñuy jëlee dogal ñooñ daara yi dañ ci war a bokk loolee di xalaatu sëriñ buub dugguñ ci pour xëccoo dañ ci dugg pour bokk. ndax fa ñuy décider fa ñuy waxee war nañ caa bokk ndax man mii kat Kaolack kenn du def dara te boolewuma ci tey waaw président de la république sax bu fay ñëw mbooloo moom daje maa koy dalal kon loolu ëllëg tamit kenn ku ne ci daara ji war nañoo bokk ci yëf yi man waxuma ne nañ ñu jox nañ bokk nañ bokk buñ bokkee te daara ak ñaara ànd daara ak liggéeykat rek am suñ déggee léeg-léeg ñu ne ñun daara ak liggéeykat yi naana na nañ ne ñun waa daara rek ndax képp muy def commerce wala muy def industrie wala muy def neen quatre-vingt-dix pour cent ca daara gi lañ jóge wala bu ñu jóge woon ca daara gi tax nga nekk ca terrain ba di leen liggéeyal nekk ca usine ba di leen liggéeyal wala ëpp solo gi ca gi lañ jóge wala ngay jaay seen produit ca gi lañ jóge kon nag daara jooju war nañ koo jéem a fisal war nañ koo yëkkati loolu laa ne woon ma wax leen ko fii wax leen ne leen foofu laa jëmaat te di ñaan yàlla ñi nga xam ne nii am nañ ci yaakaar ndax man du man maay nekk Touba ñi nga xam ne ni am nañ ci yaakaar ah ñu xool nan lañ mën a ànde ñu fexe ba loolu mën a am. mbooleem ñi nga xam ne teewoon nañ ci ndog li nga xam ne moom la organisé woon muy sëriñ daara yi opérateur économique yi commerçant yi ouvrier yi ñëpp ñoo xam ne jëloon nañ fi kàddu noppi nañu ngir ànd ak sëriñ buub jàppale ko ci élection législative yi. kon ñun ñëpp nañu jàpp ni ab défi la ñu ngi ci suñu kanamu responsabilité. liñ daan jàngale ca xare li <laughs> ko jàngale ca njàmbaaru gaañu jàmbaare ya li ko jàngale ca mag ñu baax ñi tey nag am nañu lu ñu doy sëkk am nañu lu ñu doy sëkk mooy réew mi ñoo ko bokk ak gaañi bis bu ñu sàgganee ba expérience bi échec kon na la wóor ni daara moom noppi naa am doole ci Sénégal waxuma ay groupe parlementaire ay fukki dëpp député naa nangam déedéet danoo bëgg sëriñ commencé par jiite parlement bi waaw ah, majoritaire loolu lañ bëgg sëriñ ñu lay xamal ni ñun marché Ocass dañu fay nekk am nañ pas-pasu ànd ak yow sëriñ Touba nag suñu yaakaar ja daa am lu mu wax daf ni fansab tusib an garini gaayatil amal fas fasbir ala kulli ma iti zamanu bii chabral xusaami bi kafi daareel batan yoon wi nag am na xaaxaam dana mitti waaye ñoo ngi sa ginnaaw incha allahu rabbi sëriñ bu moo présenté profil bi nga xam ne mooy défendre non seulement daara comme ñu ko fi jaare woon ñëpp wax ñu nit ñu nekk ay doomi daara waaye tamit di défendre suñu secteur privé national kon daf ñuy défendre deux fois kon kenn gënuñu cee yey dañuy defendre ci suñu origine suñu formation daara waaye daf ñuy défendre également ci suñu secteur activité kon loolu ñu ngi ciy woo mbooleem commerçant yi na ci ñëpp jàpp waaye dégg nañ sa kàddu man dama ne mbir mu ci ne bala ma cee soobu rek dama ci taqarib li nga wax nag en travers Sénégal dégg nañ ko. ñi jàng tubaab Sénégal téeméer boo jël ni pourcentage bu néew lañ kon ñi ci des ñëpp produit daara lañ kon jot na nag ngëm-ngëm bi mu am ak bëgg-bëgg bi nga am ñun waa daara ñu jàppale ko. ñun ñëpp am nañ ay naqar ay yoon yoon ci lu ñu bëggoon mu jàll assemblée ci jàllu fa wala lu fay jàll ca bëgguñoon mu jàll fa ñaar yooyu yëpp mi nga am ñun. Mm-hmm. loo xam ne ma ngi fay jàll ca neexuñu ñu sañoon du fa wala loo xam dañoo bëgg mu am fa ñu ne ñu du fi amee ca dara warul lu may ñun dañoo gëm ne nañ leen ko bàyyee kon nag bu buñ leen ko bàyyee jooytu yi njàmbat yi day yàgg ci ñun. ci fàttali ndog yi nga xam ne moom la sëriñ bu organisé fii ci Touba dugguleet ndax at mu jot da koy def mu nekk lool da ko reyee ca waajuram wa alhaaji Baara Mbuub ay bernde yu yaato yaatu waa waajal nañ ko jébbal ko mbooleem ñi nga xam ne ñoo fi teewoon gone yi nga xam ne ñoo amoon ndam ci jongante alxuraan yi jàng fa alxuraan gu sell bal huwa qur'aanun majiid fii lawhin mahfuuz sadaqallaahul aziim yaa